ñukkal di leen may seen revue de presse. ñu ànd ci ak El euh, Hadj Ahmed Aidara. bismillah feebar baa ngay rey ba léegi ni leen dee mar di daal ubbi tribune yéene kay nañu léegi ne téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn dee waaw ñoo ñàkk seenu bakkan ñoo dee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun sur sa ané dëgg la ñu bees daal dinañuy wax allahu akbar te fanweer ak juróom-ñett dee waaw ña la ilaha illallah fañ nekk nii baaxul de déedéet le tee mooy yéene kaa ne en tout cas ak waa Sénégal de waaw guerre nga ca kaw jaww jëmale ngi ni le ndaxte espace Schengen ba waaw dañoo continuer tere na kon seeni roppalaan de waa Sénégal waa Ndakaaru njaay jël tamit de ne leen nasaraan yéen tam doo fi wàcc dëgg la le quotidien yéene kaa ne même bu dee sakon kii di mi nga son waaw daal di ne ya de Sénégal kon ñu ngi leen continuer tere nag ne leen doo le moo ah, ku leen ko la ko looloo koy faj de réew mi kotu yéene diggante Sénégal ak Union européenne kay waaw jàppal bàyyil ga dé ba nga ca ba léegi ni lée tribune yéene kaay ne dama ne vol internationaux yooyee waaw ginnaaw Union européenne ah Émirats arabes unis dé eh. daal dinañuy dàq tamit Sénégal mar di tali la ilaha illallah boog soob li ne frais yi nga xam ne nag maanaam a ah. dañuy tukki danañ ko fay far force horizon sans frontière aja sora ñoo lànk waaw ñi ngi naxaru loolee te jàpp nañ ne loolee maquette la doy doy waar kay sur quotidien nee déclaration de patrimoine gi lée a ah, nii Macky di doxalee dé ci xii jaaxaa parce que nag dañoo ay kilifa xam ne dé nekk ci nguur gi am ay jafe-jafe ne ñàkk a respecté nag la loi numéro 2014 17 du 2 avril 2014 si gi lée te ñoom ñooñee nga xam ne nee nañ duñ defen seen de patrimoine dé dañoo jàkkaarloo koo xam ne ah, moom mi defu ko di balaa ngaa santaane sangu doy ngir ñu xool alalam jool ca moom it fan la toll alundin a ah, nee na yi ñoo ko war defandoo mook ay ministre ñoo ko war defandoo enquête yéen a kaay ne de patrimoine googee waaw dama ne la jaanu géej la jaanu géej la ministre yee ak ñi nga xam ne kon maanaam dañ koo war a def nag par waaw lank ndaali tëri ca suuf ne duñ def nag déclaration de patrimoine de waa léegi nag mbir mi moom fan lay mujjee looloo jaralaaj parce a waaw nee na lii sax boo xoolee ba ci biir mbirum yaacaaral la quoi fulla ak fayda ci boppam moom manqué ca kaw nguur ga nag laa la wax laxisme la terminé yéene kaa ne Macky Sall de ma ngay sàkku nag déclaration de patrimoine ci ministre am yii ah dafa bëgg lépp leer wala daa bëgg a xam lan la gars yi toogaale waaw kay direct news de en tout cas Macky Sall de ah, de bi le ñaareelu gouvernement ngam bi matal na léegi fukki weer ak juróom am na ñoo xam ne liggéeyuñu dara zéro du Macky Abdoulaye Diouf Sarr Cheikh Omar Anne Moussa Baldé Samba Ndiobène Ka Abdou Karim Fofana Abdou Karim Sarr Sall Mansour Faye Amadou Hott Serigne Mbaye Thiam yéen kaay Pape Jogoy Faye bi ne ak ñoo xam ne nag ñooy héros yi liggéey nañu ko mel ni Mohamed Boun Abdallah Dionne docteur Cheikh Kanté Aly Ngouille Ndiaye Abdoulaye Daouda Diallo Amadou Ba Mamadou Matar Cissé Omar Youm Moustapha Diop ak ñoo xam ne nag duñu héros te duñ zéro yàquñu defaruñu mooy jigéen ñi jigéen ñi nga xam ne maanaam ñoom ñoo nekk ci biir gouvernement bi lée les femmes waaw dama ne yàquñu defaruñu coowal kawel yi dee ne Abdou Karim Sall donga moo jël de déedéet Aly Ngouille Ndiaye ministre de l'intérieur mar day taali ndeke jël na ñaar eh, am na ci ñaari ferme privée yoo xam ne tam jël na ñaar muy juróom benn kéwél eh way samba dama la ñoom la ñu fa génnee ndoo ca benn bis ba réserve publique boobee ca ferlo ba te boobee de direction des parcs nationaux mi ngi taxaw la ilaha illallah 24 heures yéene kaa ne tey man sama Sénégal gi lée xaaral ma tuur ronga ña daal di jooy yow wenn république boo xam ne de ñaari askan la parce que yow joo xam ne askan wi lée ñi ngi am ndoxu robinet béykat yaa ngi ni lée xaaral xaar jiwu kii ba seen yaakaar di kat ci jamono joojee waaw la fa am mafia dugg ñu ñàkk seeni suuf ay milliardaire daal di leen kar ñoom béykat ya ndool gaa ngi ni lée ci biir réew mi feebar faju moom léegi doom bu góor la njàngame njàngale mi lée ma ngay suux éducation ca jamono joojee la ñu waa inspection générale d'état yige waaw xamal ni kon alalu askan wi lée ñi nekk ci nguuru Macky Sall gi lée dañu koo jaxajaxatee kon daal di koy séedoo looloo kon a vert Ousmane Sonko waa Pastef de jàpp nañ ne nguur gi dañoo wor te ñu ngi ci tànku jaxa-jaxatee kon suuf si ba léegi ni lée termines yéene kaa ne suuf see nga xam ne nag dañ ne ca Anse dañ koo jox nag ab société sud africaine de Alioune Ndoye ministre waaw yëgu ko de nee na bëgg na ca ay gindi de libération yéene kaa ne violation décret bi nga xam ne na commandé ay oto wala joxe ay oto kon da koo dakal waa ARMP de ña nga ca yoonu scandale ba nag mardi Ouattara troisième mandat fii mukk mukk du fi am de mukk li am kay laasee na maître Malick de ministre de la justice a yëkkati na yat wa de ci kaw nag Ayaboun Malick Diop demande explication la ak mise en cay wàllum justice wàllum justice boobu Aliou Sall de waaw benn milliard lay laaja Bougane Gueye Dany mi de ak Ahmed Aïdara la ilaha illallah waaw Aliou Sall daal ak avocat am waaw jàpp nañ ne nag le Ahmed Aïdara waxoon ci revue de presse tam ne Aliou Sall daal avocat ba day waaw nee na Alioune nag léegi un milliard lay sàkku ci Bougane Gueye Dany mi lay ak Ahmed Aïdara procureur ne na yat wa dal adawa nag fukki fan juróom ñaar ci weeru ut lay doon yéene kaay Cheikh Omar Ndaw bi ne mais xam nga lan moo doy waar ci plainte bi ah revue de presse waaw lan moo tax nag ba topp ñu journal yi nga xam ni maanaam ñoom ñoo ko bind article yi looloo doy waar tey <laughs> milliards waaye six mille milliards pétrole bi mënuñu koo fàttale déedéet parce que suul gaz du ko tere xañ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal CCBM Automobile, représentant exclusif marque Volkswagen, d'origine allemande, numéro 1 des ventes en Europe, à Gridwall, numéro 1 des ventes en Chine, Moulin Donmai, c'est une revue de presse.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 ñu war di ah. exécuter gars yi ne ko defuñu ko <laughs> te du mujj fenn loolu mooy wane ne kon wax jooju ay dóor la wala mm. ah, ah. <laughs> ah wax wax dëgg yàlla te moom tamit nag déclaration de patrimoine am bii tamit moom jogay moom moom moom moom bi yoon moom moom bi yoon da da ko da koo def dans la plus grande discrétion te déclaration de patrimoine nag alaaji mm. xanaa a askan wi nga jiite la ñun ñëpp xam ne. ñëpp xam waaw ñoom diw ñuy jiite kat ba ñuy dugg lii la ñu yor ba ñuy génn it. Hmm. lii la ñu yor ku calculer seen weer yi dee ak seen marché yi ñu doon yi ñu doon hmm. ñu xam ne kii lii ak lii léegi lii ak wala. ku ci am ferme ñu xam. ku ci am ñu xam. ferme yi day ferme yi day ferme yi day. de démb sax seex yi démb sax seex yi de moom la ñu wax moom. lii bu ñu xam naa ne moom doy na wax. ñu doon génn ñi ci am ay ferme ñëpp. yàlla bu gi jeex. ah bon. Ah, ah mooy yéexe. alañ kay ah, ku ci amul suuf amoo dara. ñoom sax ñoom sax day alaaj ah. ñoom sax ay nit lañ sax am nañ droit am suuf waaye xam naa ne daal ni ñu koy amee. amin waa tax may wax loolu la loolu la ay sénégalais lañ moom. amin waa ay sénégalais lañ. xam naa ay sénégalais lañu am nañ sañ-sañ liggéey te fii rek nag lañu war a liggéey hmm. am nañ sañ-sañ fayeeku weeru dee liggéey di nga fayeeku moo xam administration wala privé waaye xam naa ni daal hmm. de man man day man day man day Macky daal lu tax man du sanctionné man moo ma jaaxal. foofu ah! la débat bi. alay débat bi du kaay leen def déclaration patrimoine débat bi mooy. 2016 ak léegi. ñu ñu ni sàcc nañu alalu askan wi. ba tey leen sanctionné. foofal foofee la bi jëm débat bi jëmul fii de fii ku déclaré yaa xam ku déclaré yaa xam en tout cas corps contrôle euh, de l'État yi daañu fa ñëw. saytu la nga na nga ŋàbbee kon garaawul sàcc bu dul raw la mais ñi sàcc bañ jàpp leen. waaw non leen sanctionné. il foo arrêter di promouvoir ñiy sàcc. voilà di leen defal di leen defal promotion. waaw waaw faut ñu arrêter loolu. bu bu bu ñu leen génnee fii ñu ne rapport yi tax ñu daaneel leen. ah, ah joxaat leen yeneen ay postes de responsabilité. mais loolu ban sens la ma laaj yu gën a baax yu gën a baax. ah ay remplaçant remplacé da ngay dugg ñu remplacé nga ñu remplacé. mais loolu loolu amul loolu amul sens. Macky Sall like, yu ngande yi am ci réew mi yëpp amul ci benn boo xamante ne nii alaaji. Hmm. waa réew mi nee nañu ah sa waay kat dàq nañ diw wala tëj nañ diw. Hmm. loolu moom moo jaaxal ni. wax dëgg yàlla. Ablaye sax bu la tëjul woon moom dana la dàq. te Ablaye sax amoon na ci nguuram ñoo xam ne dañ leen a teg. Hmm. même bu dee ñooñu après seeni mbokk dañ ne politique lal lii. kon de tuñaa tëjoon nañ ko fi. Modibo Diop Idrissa Seck. léegi politique la ak lu du politique seen parti la. Hmm. waaye daal en tout cas ñoom ak waa ji ñoo faroon xaw ma nag lan lañ def bañ tëj leen. Hmm. voilà hmm. wax dëgg yàlla. mais yow nit koo xam ne yow yow yow say scandale alaaji ci ci ci ci ci ñetti at romb na fop ñële te yow say nit kenn inquiété wul. ah. ngay yàq leen ak ci yàlla. Ah ah. baax na nduur fay xaw ma xaw ma may mënoon Ndour fay xaw ma daaw da am cinq cent millions xaw ma un milliard Pape Alé Niang un milliard Ahmed Aïdara un milliard yéen loolu mooy di ngeen noppi noppi moom di ko def ci mim réew moom te ngeen ñoo ñëw jaay te fayee ko te fayee ko bor yi ngeen ñuy toppee. Ce qui est curieux, c'est la plainte ne euh, moom mi kalaamee moom waa ji Sall. Mm. la. xam nañu xam nañu coow bi ci euh, kii la ci bëgg nii nii rek. waaye xam na ni moom moom mi kalaamee noonu journaliste la. Sall de euh, xamoo woon xamoo woon Aliou Sall la. mais lan moo tax kalaamee ñu bind article Alioune Sall day ah boo demee xam naa danaan waa ji rek moo mën a joxe xibaar bi ndax moo fi dëkk. Ah, yow ah déedéet déedéet loolu laa xalaat di. yow Alioune Sall Alioune Sall moom Alioune Sall moom sax moom man moom vraiment muy bëgg sax man di ci ay bagages am waaye moom li ko war moom xam na ko moom moom moom xam nga koo xamante ne ni yow moom. doo hésité jàmpaaka sa mag moos xam nga ne ñeneen ñi doo leen fi baax kooku moom Aliou moom nañ ko bàyyi te jublu ci wàllum kéwél yi alaaji ak déclaration de patrimoine yii wax Aliou moom xam nga jëfam ji yëpp moom moog ay nitam fee la ñuy toll rek di wax <laughs> waaye pour jàkkaarloog man moom loolu moom duñ ko def léegi déclaration de patrimoine yi lañu wax moom mii ci boppam dafa war a def déclaration te du ministre yi dong de alaaji déedéet du ministre de. non du ministre de am budget bu yegg milliard da war a di déclaration de patrimoine et ñoom Abdoul Mbaye ak ñoom Khalifa Sall yëpp ñoom ñëpp dañ leen koo def loo. nee nañ maître yum de moom def naa laaj. waaw nee na def na de moom non moom moo ni def na. ah moom wax na ko. wax Mbour démb. ah kon na xanaa kay mag mu toll noonu du dem toog fu mu toog naan def naa déclaration te te defu ko avocat moom def na. waaw moom moo ni na leen jàpp ne kon def na. waaw moom moo ni def na de. waaw loolu laa wax ah, mais moytu yu ngi koy xanaa nag alaaj ne du ne def naa déclaration. mais diw ma def na kay. waaw mais moom moo ko wax. waaw moom moo ni def na moom moo ni def na. démb bi mu demee def na. <laughs> ça va. Ah. waaw léegi moom. waaw man fi mu ne boo ma nee defal déclaration patrimoine boo xam ne da ngaa ci man li ma lay indil. xam nga lu ma lay bindal. Hmm, doy na waar. doy na waar. benn sikkat laa lay bindal. ak benn xar jigéen. muy nàmpal doom. <laughs> loolu doomu de xanaa ak yére yi may sax. mais alaaj li ci doy waar dañ ne huit cent juróom-ñetti téeméer ci ay autorité daanaka genn wàll gi alaaj ñoom ñoo def déclaration de patrimoine genn wàll gi laa ak nan lañ ko defee sax. ak nan lañ ko defee. ok man man def naa ko kii wu ma de gondi de mais noo ko defee. cest à Sénégal nan la ñuy defee nan la ñuy demander pour ñu def déclaration de patrimoine. ah waaye waaye alaaj nag déclaration de patrimoine daal moom sa waay comme son nom l'indique ñëwul fii nga wax ñu ci law daju booy dugg te booy génn tam da nga war a defaat de booy génn. gis nga ko Moussa mos nga ko gis fii ku ko ku génn def ko. mos nga ko gis ku génn def ko de. waaye man ne ñii ne ci biir sax def ko nii sax laaj dañ leen di compter. Eh. waaw mais moom moom moom njiitu réew ci boppam. Hmm. njiitu réew ci boppam. Hmm. ginnaaw yi acte bu njëkk ginnaaw bañ la fale. Mm. prêter serment. Mm. deuxième acte bi ci war est-ce que xam nga lan la. Mm. xam nga lan la. Mm-hmm. yow nga war a def déclaration de patrimoine. yow kay bu la bu la juge yi conseil constitutionnel yeewee kay ba nangul la ne falu nga ba jox la caabi ji kay alaaji takkal la drapeau bi. Mm-hmm. yow kay lan moo ci war a topp. yow da koo def moom te nit ñi yëguñu ko. en tout cas ba muy doog a ñëw ba mu njëkkoon def les sept milliards la. dañoo bëgg di jouer ak ay vocabulaire déclaration de patrimoine le Sénégal gul fi ñu waxee a mooy ay nit ñu ñuy sàcc <coughs> c'est ça la réalité egg gu ñu ci déclaration patrimoine loolu c'est pas sénégalais <coughs> ah non non non mais waaw mais raison de président alaaj déclaration de patrimoine boobu ngay wax noonu alaaj ah. loolu mooy dindi sàcc gi alaaj ñun dañoo gëm cat ba léegi moo tax amul kenn ku lay wax la mu am lépp fii Sénégal ñoo gëm cat ba léegi cat la ñu gëm waa non mais lan mooy cat alaaj man am naa kër la mañ ak man am naa kër man alaaj man am naa am naa kër waaw am naa oto waaw sama compte temps moo ci ne mais kooku bu ma ko jëlulee taal ko alaaj waaw lan moo ko fay jëlee mais lu tax cat gars yi du topp tubaab yi te duñu topp <laughs> waaye ñu nañu gëm cat bokkuñu réalité ah non non non tubaab yi ku sàcc ñu jàpp la déclaration de tubaab yi képp ku ñu ñaata ñaata ñaata plainte moo topp euh, premier ministre bi démissionné bëkk démb ci ay mauvaise gestion ci covid 19 ah, bii bokkul sax nag ak détournement de ak directeur de la santé yow fii nag dañu lay indil rapport détournement sàcc marché gré à gré nga tëdd nelaw ba yandoor yow dañoo bokk ah, réalité non xam nga xam nga lan moo ci lu ci gën a nekk triste ah. li ci gën a triste alaaji li ci gën a trist xam nga moom mooy lan est-ce que nguuru Macky gi buñ bëggee songu nit yónnee ko ay inspecteur mm-hmm. waa IG mm-hmm. waa IG nag ñoom at bu ne dañu leen wax ne leen càmbaral leen ñu mm-hmm. alalu réew mi kenn yónniwu leen ñu dem càmbar alalu réew mi ñëw indi teg ne la ñii ñoo luubal du ñu mujj fen waaw loolu laa lay wax. waaye élection mi ngi waaj a ñëw lu mooy atta ci des Khalifa Sall il faut ñu daaneel ko Karim il faut ñu daaneel ko gars yi ni ñuy accélérer maanaam processus bi rek teg ba dóor conférence de presse indi teg. Mhm. ne tant ci ay tonnes or la ndaw si yore. Mhm. tant ci ay milliards tant faram fàccee lépp indi teg. Mhm. ne lii nag dañoo jàpp ne lewul lii ak lii comme que lewul buur lii la ci wax. waa mais ñi nga xam ne nag moom inspecteurs yi dañ dañ ne. dañoo sàcc alaaji dañoo sàcc. te buñ tëddee nelaw. te buñ tëddee nelaw mais imaginel ngay dégg ay juróom-benn fukki milliards. alaaji. ak benn francophonie ba ak kër Abdou Diouf ga ak benn kéwlu 40 millions ñu lekk ko. équivalence boobu dong la di ku mën a facturer benn nekk alaaji 100 millions. mooy mooy mooy mooy jàpp kéwlu 40 millions rek ko. Cheikh Dieng nee na. Hmm. Cheikh Dieng. Hmm. Hmm. kéwel goo xam ne dañ ne dañ koo pikiir. te loolu la Abdou Karim Sall wax. Mm-hmm. ne dañ leen a pikiir. Mm-hmm. kii luñ pikiir ba nga xam ne maanaam anesthésié alaaj yow buñ la ko roofee di la opéré. Mm-hmm. xam nga dootoo yëngu. dootoo yëngu. waaw mais kéwél yi dañ doon weq. damm di weq. waaw léegi ku ñu pikiir moom ba sa yaram seddu guy nan ngay weqoo luñ lay takkee voilà. <coughs> nee na fi mu nekkoon dugg fa. bëy. <coughs> kéwéli hmm. dañ leen a rey dibi leen dañ leen a pikiroon pour bañ ñu yëngatu te biñ leen di rey dañ dañ doon wequ léegi ñu ne bi ñu leen pikiree xam nga bu ñu la pikiree kon sa yaram am na poson waaw kon waruñ laa dibi waaw loolu la Abdou Karim Sall wax de waaw Cheikh Dieng ni fa mu nekkoon dafaa jugul nag moom moom lu mu wax ma ni dañ leen a tàncalee ñu damm ñu damm seeni collègue yu fa ne ñoom ñoo ko wax ñuy bëgg a sedd ñu di bile. Ah, waaw kéwél li kenn du ko bàyyi muy sedd yàpp kéwél rek. <laughs> Ah, ah, gis nga yàpp ça fa yàpp kéwél woo xam ni seize millions de sénégalais ñoo ko bokk boo ko naree di bi alaaji. Hmm. ku ca ne di ko jox dogam woo illaa di nga tàggoo. wala du rees. wala du reesee noonu. kéwél ndawal loo xam ne moom kër gi yëpp ko moom. nga làqtoog moom ca ginnaaw dem afra ko lekk ko ba pare. xarum tabaski alaaji xarum tabaski. lu la jotale rek. jotale ba rek mu dul yoon. non attends. jotale ba jotale rek mu yoon. ba pare beneen beneen affaire bi am. Hmm. convention bi ñuy wax naan dañ ko caa signé. Hmm. foofu nag moom mooy mbir mi. waaw kay. yow imaginer li yow. ki yor sa tool. yow nga nekk ministre bi. ki yor sa tool. Hmm. ñëw di signé contrat ak yow. sa employé alaaji sa employé. bugaan ne ma nañ jël alalu askan wi. Mhm. dara fii ñëw maag yow ñu signé. mais mhm. yow man ma nekk ci biir kër gi. Mhm. nekk sa directeur fii nii des médias fii nii. yow nga nekk patron bi. ma ñëw di signé. ak yow. loolu mooy lan. convention boobu ngay wax Cheikh Dieng nee na. directeur fermam bi. moo signé fii moom ministre bi mu signé fii. waa li neexul. wax dëgg yàlla. <laughs> ndax <coughs> dëgg yàlla ah ni muñ rek te nee nañ kenn du ko fi waxe laay nañu wax ba xuttiku laay laay di laa danañu waxa waxa wax waxa wax ba dee fu nekk ni daal fu nekk ni daal alaaji nañ del nañ nekk ci la ñu nekk rek la ñu nekk daal mooy bu ñu wax ci ay déclaration patrimoine nañ ñu wax ñii ci xaalis bi rapport IG bi ana ñu ñu génn xaalis bi non seulement ñu génn xaalis bi ñu nangu seen ay bien boo la ñu nangu seen ay bien ñu sanctionné leen xam nga lu gën a graaw même politiquement sax bu ñu la xeexee ba rendi la lu tax ñu jotaat xaalis ba par exemple ak Karim Wade Khalifa Sall lu ñu leen tuumaal ku ne du ay milliards te dugg leen kaso mais dañ fayee ko xaalis ba xaalis bi ñu leen tuumaal yéen a ko sàcc ñu ngi ci dëkk bi ñu ngi ci réew mi dañ ñu fay suñuy milliards looloo jaaxal ñu koy école looloo jaaxal yow jàpp ni ko ba pare eh déet ba pare ne alal ji. Ah. lii la ak lii ak lii ak lii moom moo ko moom. moo ko moom doo ko fayeeku. waaye loolu doo ko jël. Karim moo moom oto yi moo moom kër yi moo moom aéroport Malabo moo moom Dubai Port World moo moom lii ak lii ak lii. doo ko nangu nga xayma ko mu nekk milliards yi milliards yow ngay état. doo ko nangu. fii ñu nekk immeuble bi nii nii nii nii nii nii nii état bu ko neexoon tey mu saisir ko. waaw les émis dañ koy saisir wala tali dafiy jaar kenn mënu ci dara waaye loolu yëpp nga tuumaal comme nit alaaji Khalifa Sall mi ngi tuumaal un milliard huit cent ba pare daan ko juróomi million. kese ak atu yàlla. léegi te milliards yi Sénégalais yi moom ko. waaw doo ko fayeeku. léegi nag ah. léegi té téere Pape bi li mu wax ni Cheikh Omar Anne def na ko fii au lieu ñu ñu ñu leexal ko. ñu bàyyi Cheikh Omar Anne moom moom mu ñu day kalaame Pape Alé ñu laaj ko léegi ñëpp loppi Sénégalais yëpp noppi. nguur gi ñëpp noppi te ñoom li ñuy laaj sax xam na la. ñoom ay milliards la ñuy laaj. Mhm, waa boo ko laajee milliards tey lay gëj a wax. dootul ay tiit Fay bi. bind na ko. dina ci ñëw ak exclusif ak daaw daaw de waaw ñu ni dañu nekk ci ay négociation jaay mairie bu njëkk bu Géejawaay. jaay ko jaay ko waa Auchan. ba yàgg ñu non du jaay échange la en tout cas nu ko journaux yu ñu xëy si def ko revue de presse. Aliou Sall ni la yëggee ji way ni au maak affaire journal yooyu waaye ab ci gémmañu Ahmed Aïdara la génne ak rajo Bougane ñoom lay kalaam ñoo il faut arrêter de jouer ak nit ñi Sénégal ñoo leen gën a yeewu bàyyi leen seen xel yi ngeen di fooye dañuy fooye ak seen xela ah. ñu ne déet leen di laaj un milliard na ñëw ak moom ak ak ak moom ak moom cool bi bi si li am daaw ak ren yëpp na ñëw ñu daje ma jox ko nga xam ni xale yi li ñuy fooy mooy suñu 400 suñu 400 non non ñëw ñëw laa wax waaw léegi léegi lan moo neex lan moo tax ñoom lan moo tax lan moo tax vraiment ñi nga xam ni politique a tax eh. ñi politique tax ñu tekki dara ñi politique tax ñu tekki dara lan moo tax ñi fooy xelu Sénégal yi alaaji nguur moo neex <laughs> jaay doole gi Afrique. jaay doole gi ci ñu yor suñu nguur yi ñun Afrique. moo tax duñ de gis nañ fi ñoo xam ne dañuy dem. bay nangu jabaru jàmbur nii nii kooku jëkkër ji toog nii impuissant nii nga nangu jabaram gis nañ ko. Afrique alaaji. Afrique nguur yi noonu lay demee. xaayaar na ko dégg séeréer. dañ leen dem ba ci kanam nangu jabaru jàmbur laa wax sax am na fi. waaw ñun ci suñu kilifa yi fii nii Afrique. déggoo ma de nguur nguuru Afrique moo moo moo. mooy dof mooy dofloo ki fóoloo. voilà voilà. mooy dofloo ki fóoloo waaw. mooy dofloo ki fóoloo. donc dafa nangu jabaru jàmbur nii. te waa te loolu daa garaaw ba nga xam ni nangu ko nii. daa garaaw bi nga xam ni bi yont yàlla daawut duggee ci jeu boobu yàlla. ñu am ay doom ñu am doom. te waa ji fasewu ko yooyu sa gis nañ ko fi mais yooyu moom après la. loolu dafa garaaw. ci kanam tuuti daañu continué waat euh, li des ci waxtaan bi ci seen émission tës jaa ngeen jëf.